إني أخاذب النصارى ترى في أرضهم لمالك مرسرى mbokki juliti yi mbokki taalibe yi fini ngi fii nii teew ci bisu xasida bi nga xamante ni ngi koy def fii ci euh, Touba euh, Malpensa euh, ñu ñu ànd fi ak ñaari si nu ngeen do ak fan ngeen jóge man maa ngi tudd soxna Jaara dëkk Isorella bi Touba Brescia soxna si yéen ban yeg yeg ngeen am ci bisu xasida bi bisu xasida bi euh, bisu xasida bi dafa nekk bis boo xamante macha allah dama fay ñëw ndax euh, benn ci wàllu exposition bi exposition bi neex na ma loolu ak li ñu wan loo xamante xëy na ñun xamuñu ko woon sax exposition bi dinañu ko wan ak ñoo xamante tamit lii nii suñ ko amee day tax ñun suñu doom suñu doom ñi ñëw dinañ euh, mën a gis lii lépp na xamante ñun noo ko liggéey mel ni kon yéen na ngeen doon jàpp euh, ci liggéey bi nga xamante ni moo amoon euh, fii nii di exposition bi ban yëg-yëg nga ci am. yëg-yëg bi ma ci am nag mooy exposition bi loo xamante dafa rafet macha allah ndax lii nii day tax euh, sunu doom yi su ñëwee dinañ mën a gis li ñuy def ndax lii nii mën nañ kaate ay ati at loo xamante après nouvelle génération bi su ñëwee dinañ ko mën a gis te mën cee xam-xam. man cee am nag loo xamante dinañ ci xam dara. mu euh, mu mel ni buñ gisee exposition bi dafa mel ni euh, ay ndaw ñoo fi ëpp mu mel ni am na yeneen jéego yoo xamante ni ndaw ñi ñu ngi koy tàmbale di dox ci wàllu euh, tasaare njàngalem Serigne Touba nan nga gisee loolu ak yow personnellement nan nga nekk di ci doxee. soxna si dégg naa la lii nii dafa rafet ndax nit da su su dee amoo loo xam sa xamxam sa da ci yokku daal ndax lii nii am na ñoo xamante dañ leen di wax benn affaire sax kon man fi ma noon exploré dañ noonu leen di wax benn affaire ñu ne la ah lii de moom mosuma kaa xam kon am na ñoo ñoo xamante sax am na ñoo xamante xamaguñ ko et questo affaire bi nii day jàppale nit ñi pour ñu mën a gën a xam seen diine ak lii Cheikh Ahmadou Bamba bind jërëjëf asalaamaaleykum soxna si nan nga tudd ak fan nga bàyyi ko. maaleykum salaam maa ngi lay nuyu di la sant euh, maa ngi tudd Maguette Niang maa ngi bàyyeekoo Bergamo ci daaray Touba Bel Jingooño. Euh, euh, ñu soxna si ñu lay laaj lan mooy sa yëg-yëg ci bisu xasida bisu xasida gi doon na loo xamante ne képp kuy kuy topp Serigne Touba fonk nga ko parce que journée bi nekk na journée mondiale. presque mën nañ kaaw parce que ñi nekk si yeneen dëkk yi sax dinañ ñëw di ko teewlu di façon kuréel bu nekk dinañ ñëw di def seen prestation di jàng xasida te nit ñi tamit dinañ ñëw pour xam fu mu toll nii ñoo ngi def benn exposition boo xamante ne waa majalis ñoo ko fi teewe ñun euh, waa xaley Touba Zingoña comme amoon nañ ci expérience ñëw di leen ci jàppale ñu indi nañ fi euh, slide yoo xamante ne am na solo lool dina tax ni képp koo xamante ne gëm gëm nga sëriñ bi te ab murit nga di am xam-xam bu baax si lenn si njàngitu sëriñ Touba yi. soxna si lan nga yaakaar ni moom moo war a doon taxawaayu ndaw ñi ci bisu xasida bi d'abord waaye tamit ci tasaare njàngalem sëriñ Touba fii ci diaspora. Euh, sëriñ Touba moom si ndaw li bëggul lenn euh, lenn kese la si bëgg pour ñu jàng ak xam parce que jullit mënoo ñëw ne dangaa bëgg a jàng dangaa bëgg a xam li te jàngoo tamit te xamoo lan mooy sa diine parce que avant tout kenn ku nekk war ngaa xam lan mooy sa diine pour am xam-xam parce que dañuy naan la connaissance est la est la base de tout euh, te sëñ Touba tamit wax na ko si ay téereem xale yi nag euh, sama mbokk ndaw yi laay wax sax ñi nga xamante ne ñoo ngi si journée xasida bi euh, ñëw nañ teewu nañ fii pour topp sëñ bi xam euh, déglu ay xassidam jangat tamit parce que lépp foo mënti dem su fekke ne beurep bu bax na même ba ngay ba ngay ñew mën na am indalé wo dar mais ba ngay soy ñibisi war nga am lo sa kër en tant que en tant tamit ne man bëgg na xam dara ndaw yi suñu ndaw yi euh, en futur nak ma ngi leen ni wax ni kep kuy julit war nga xam sa diine na fu mu toll ni toll nañ ci jamo jo xam jamono joo xamante ne nit lu ndaw ngay def nga réer te lu nit gaaw na lool def lu baax tamit yomb na lool yombut moo tax ñu ñu leen di concilier ngeen gëstu si ay jàng parce que am na ñoo xam ne bëgg nañoo xam waaye amul ku leen taxaw xamuñu fan la ñuy jëlee mais soo gisee exposition yi mel nii nit ñi dinañ gën a am euh, dinañ gën a bëgg ñëw daal di xam di jàngat di xam lan la fi sëñ Touba indi lan la bëggoon kenn ku nekk nekk ko ak ku bëgg doon ak taalibeem nan nga war a mel. Euh, soxna si su ma la doon laaj lan mooy point fort euh, euh, daaray tu tànk Touba Zingoña lan ngay wax. daaray Touba Zingoña moom nekk nañ nit ñoo xamante ni ñëpp ay ndaw lañ xamaguñu dara nag dañuy soog a door te bëgg nañ suñu mag ñi fa nekk suñu papa yi ñu ay taari ñu gën nañoo jàppale pour ñu gën a xam ñun nag suñu tànk moom mooy booloo bi. mbooloo bi moom ñu ngi ciy wax macha allah moom nekk nañ ñoo xamante ne suñu antul ñun parce que jullit mënoo ba def benn liggéey boo xamante yéen ñëpp àndu leen parce que lu ndaw su fekkee da ngeen koy def te àndu leen moog zéro yam moo tax lépp lu ñuy def dañ ciy dégloo même su fekkee ne am na sikk sàkk même su fekkee ne dina am mer mais dinañ xam ne liggéey bi moo tax ndax munoo def benn liggéey sëñ Touba de du am ñaar ñoo xam ne dañuy xiiroo wala mais lépp am suñuy retourné moom dinañ xam ne sëñ bi moo tax te lépp jàmm lay doon daal euh, moo nekk <laughs> soxna si lan mooy doon sa kàddu yu mujj ci exposition bi ci bisu xasida bi waaye en général ci taxawaayu ndaw ñi ci mouridisme fii ci Touba. Euh, murit yi moom euh, macha allah fu ñu toll ni ñoo ngi def euh, liggéey boo xamante liggéey bu rafet. surtout waa li nga xamante ne ñoo indi liggéey bi ak ñi nekk seen entourage ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm parce que li ñuy def moom rafet na mën naa wax ne am na ñoo xamante ne ba ñuy ñëw xamuñu woon lii te bañ fi yegsee moom xam nañ fi euh, histoire yi bari xam xam nañ fi sëñ Touba yi mu doon def ak image yi ñu indi tamit nekk na image yi raar yoo xamante ne man mi sama jëmm bopp sax gisuma ko mosuma kaa gis te nekk na affaire rafet yoo xamante ne tax kenn ku nekk di nga lii kon sëñ bi defoon na ko fi lii kon ñii tamit nekkoon nañ fi nekk na affaire bu rafet daal man naan maa ngi naan képp koo xamante ne ab gone nga tax fu mu toll nii réew mi moom gaaw na loo xamante ne da lay yàq nañ toppaat fi suñu maam yi toppoon bëgg jàng ak xam-xam ndax fii moom diine rek la mën a yar lépp lu ndaw loo def dalay yàq gaaw na lool te ñoo ngi wax tamit na ñuy am àndandoo joo xamante ne day baax parce que sëñ Touba tamit wax na ko seetal koo xamante ne dangay jàng si moom ndax roy tamit nit daa war a nekk koo xamante ne daa war a roy moroomam si lu baax noonu si lu bon moo tax maa ngi ñaan sama mboroomu gone yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi nañ delluwaat si seen tànk te gëstu li fi sëriñ bi bàyyi. jërëjëf soxna si. إني أخاذب النصارى ترى في أرضهم لمالك مصرى إني أخاذب النصارى ترى في أرضهم لمالك مصرى bisimilah alhamdulilah ñu ñëw fas yéene andi ay bayit yu gàtt ci sëñ Mbaye Jaxate ci soññee ci wàllu murit soññee ci wàllu murit nag buñ ko waxee bokk na ci li nga xam ne ñu ngi koy jëfee muy nuru ak murit te fekk du ak murit ndax euh, sëñ Mbaye Jaxate wax na ni saytaane wor na gaa yi tey biñ tënkee ak murit ci am ay murit defe nañ ni ku am ay murit dib murit te bari na ñoo xam ne si dund nañ ci ak murit ba am par benn benn murit te duñ ab murit waaw mu ne seytaane war na gaa yi tey bañ tënkee ak murit ci am ay murit defe nañ ne ku am ay murit di murit daal di wax murit dëgg yombul la yombay nga wax ni man ab murit laa te doo ab murit waxaan ne li dee di métti métti jotul ak murit mën ngaa gis ku tëb léegi daal di dee tu doo gis ku doon ab murit comme murit murit lu jafe la wax daal murit aku fasayam taw fas du saytu mbiram borom kay wëg ak diko ñaddal yoral ko mbiram ah aw fas bu wutum ndox mba muy wutum ñadd day daw ba dee ko xelam ne xeram kon murid lu jafé la ah ah murit lu jafé la amna fu waxat tamit ni ku bopam la jël mu réerey mbiram bu bëgg mbolo yorul am xelam ku yor wenn mol mol wa ta moko far mu jox ma téméré mol luy mbiram koo xam ne sa bopp da laa lëjal te mënoo dara ci sa bopp nga naan ma jox ma mbooloo kon loolu a gàtt xel la mu ne ko boppam lëjal mu réeréy mbiram su dee bëgg mbooloo yorul am xelam ku yor wenn mol mol wa ta moo ko far mun naa jox ma téeméeri mol mbiram kon foofu tamit ñëw na ci sëriñ si waxaat tamit ne li tax murit yi bon bari sëriñ si bon danoo bari ab sëriñ su dencee lu bari duutu mën na yóbbu duutul mën a dem kon tamit foofu ñëw na ci sëriñ si ñëw na ci taalibe yi nee na soxnaa ki njël jëfewul foo dem di gis ku ko am ak baaxataa am te mooy te mooy jariñ di musal soxna waaw fo murit dëgg yombul la yombay nga wax ni man ab murit laa te fekk doo am murit kon loolu tamit lu jara bàyyi xel la waaw ku yor wenn mol mol wa moo ko far mun naa jox ma téeméeri mol mbiram koku doxat tamit nak jeg ak dex amna lor am njariñ te lor ja de saggan ci ciat ak ci duy ku sës dekk ci dex la ak dex di ray ku dex da ku dex rey néewul woon ca manding ma dey waaw lol tamit ñu ngi koy wax ci ñinga xamne dañoo jeg ci euh te xamuñ war ma dañ leen wara jox ba tax ñu dugg ci seen biir ba lab ca ba lañ ci warona a tamit duñ ko jariñoo mu ne jegeeg dex lor am njariñ te lor jaa de saggan ci cet ak ci duy ku dex ray ku dex ray neewul won ci ku dex ku dex ray neewul won ci manding ma day kon ku dex ray rek ci wetu dex ga neewon ci taatu dex ga nga neewon ba dex ga ray la wante kan ne ci àll ba mom dex ga du ko def dara kon tamit baxna waxna ci nit ki nga xane warna jega ab serigne warna ci mana tey a euh, ba duy ci am ci lam ci bëgg te moy ñun ñi nga xamni ñi nga yaaka serigne touba khadimul mustafa waaw war nañ ko luñ ko jage-jage ak lu lépp yomb-yomb tamit war naa am war ma joo xam ne si war nañ koo jox Serigne Touba waaw loolu laa mën a ñëw ci am na fu mu waxee tamit ci kennal gi mu kennaloon Serigne Touba tamit waxoon na ne ko Cheikh Bamba yow doo sama moroom wante dama lay def ni sama borom xam naa ni doo sama moroom ndax yaa nga ci kaw te maa ngi ci suuf te yàllaa la teg ci kaw ku ne kuy bañ nga gën ko day gone te lum ko bañ bañit du teemu ne moo koy morom ñëpp sa suuf wakaan waxaan ne ko Seex Bamba yow amoo ayib te moo ne kat am nga ayib ndax ñàkk ayib doy na ayib lii rekk moo la ayibal waaw Seex Bamba doo sama morom dama laa def ne sama borom xam naa ni doo sama morom yaa ngi ci kaw te maa ngi ci suuf te yàllaa la teg ci kaw ku te kuy bañ nga gën ko it day gone te lum ko bañ bañ it du teemu ne moo koy moroomam ñëpp ci sa suuf soo xamul nag luy sa ayib man danaa la wax luy sa ayib ñàkk ayib mooy sa ayib كل رك مولا أيبي مولا أيبل السلام عليكم ورحمة الله إني أخاذب النصارى في أرجم لمالك مصرى إني أخاذب النصارى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 وخذ بغير أنا اللي به أملي أذكر بفلك سا يوردين به يا من به سرت ذا هدي ولم أمل أنت الكريم الذي أبقي تكرمه يا خير هاد هدى ني أفضل السبل كلي بجاه رسول لله مالكنا عليه خير صلاة منك عن قبلي وارفع نزامي يزا جودا وتكرمة ولا تردنه يا مذيب العلل دم النزام إلى سعي السهاب غدا ولا تردنه يا مذيب الخلل سواك لم أرج في سر وفي علن بحق وجهك حق حق الرجاء لي يا رب كل وقت لي برضا غردي وما التمست بجاه المنتقان لي سل وسلم على المختار في الكرماء وبشر النبي مي أفضل الرسل سل وسلم على المختار في الكرماء وبشر النبي مي أفضل الرسل ربي بما يسه الأزان قد فجاء بجاه أفضل من لله قل جاء ربي بما يسوى عسى نخات فجاء بجاه أفضل ما لله خلجا حمدي لرب الكريم لا شريك له وسري يوم نور ساتهم محمد صلوات الله في أبد عليه في حزبه تمت مواهبه لجملة الخلق ما يختار من برا ناجيت جلا ومن وكرمني تكريمات وكل لمن لخن بريا رحمن هب لجميع الخلق رحمة من يوني عني سر من قرآن خراب مفسدة ولترقى من القيا من جاءتهم بنا يا مالك الملك يا من جل القوادر ارحم جميع الورى يا هادي الردى يا مالك الملك يا من جل عن خواتنا ارحم جميع الورى يا هادي الردى موت ما خنها والقلب من درارنا بجايا دلملا لله خلجا هو ما خنها هو القلب من درر بجايا افتلملا لله خلجا بركي برمتوا إني أخاذب النصارى ترى في أرضهم لمالك مصرى إني